ótimo.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 ay pexe këy di bu feddi lu ñu la wax suba dinañ ko weddi ku nekk ak pexem ñi doñu doy waar yoru ñu bu ma noppi di la dig xaar ta sa yaakaar sa di la di samba allah eh, tak bi doy na kaa ku nekk ak pexem tabaski ren bi doy na ku nekk ak ami an ko kewi ala ande hande berne ma buuba ɗi wawi yew lal lalla e wakake yew ngama e fasasa kanam ni lanmo kew wala dama bëgg nga may ma sama jàmm li xew yaa ma ko gën a xam dégg nga ma lay wax bu may dugg si yow damaa yaakaar ne mooy loolu danga may defal ak naa li si biiram te yow yaa jàkkaarloog man wax ma sexalu ma la lem sexalu ma la suukar da ngay dikk sama appartement bii di ma tifli di wax bay tooy sama kau te do ma jox dara gis nga ah. bo mo mënulul dara la ngay dem buntu baangi ni nii teewuma la ami eh, àdduna ko doy doy gis nga àdduna bi ndank ndank moy japp golo ci ñaay nit boo profito sax mën na am nga jakk sa wërsëg man lima la wax maay loo ko ci poos man lima wax gisuma ci dara mané kolal man luma wax nit dina ko def wa kol ah ami an <laughs> ah, jal eh mane ko wala le rewal tuutirago mo gis la ha leg li pour la la nga gene pour la la limu mu ni dima bugg rek nga toggati firi rek waxo li pour kasse eh kuy dor men sa de go way e bobu ñuy woy dëgg lay xool déggantaana ne gis nga ni boo def ma ngi yow nañ mëna nek nekk xoolal dama la bugg kamal goro gor man kamal naa la leen sama àdduna du dara lu dul lu mu am ñëw bokk ko ak yow te xamal naa leen tabaski bii nga nar a tabaski boo xam ne bi nga juddoo ba léegi musoo tabaski tabaski. bu nu mel waaw ndax yaa dugg ci ki nga xam ne mooy boobu. xam nga laa bëgg xam nga laa li ngay wax dee ko def. ami man lu mu wax def. ti yàlla moo def gis nga yow sama xol bi moo la bugg xam nga li naan sama xol bi dina péré. Mm. di saf lu neex. Mm. ah. Mm. waaye di ko. lii daal boo koy eh, defanteeg man. Eh, maa ngi yow duñ am benn problème ndax yaa ma ko gëmloo. yaa ngi def ku ra xoolal comme ay sànq lañ sama yaram. oh. lan mun naa la nag de. lan nga bëgg ma defaral la. yow tey jour journée tey bi loo bëgg yàlla nay jaam dëgg neexul. ma ne kóolal man ni nga ma jege nii rek neex na. Ah. bi sedd na guy. ma gën laa nii rek doy na. ma ne nii def nii rek baax. kon neex na oh, waaye Ami yow ah, yaa ko waral. yaa yaa ko waral. jël yàpp rek dóor ci tubaay nii mu rafet nii. macha allah <laughs> laa ilaaha illallaah. <laughs> kene keccir di gallaani joni kosam ndina metti gaynaako ko aan woni ami laka bi gudduno waaw naka dalal bi nag maanaam dem laa tagg wane ne yow jigéen bu saf jigéen. waaw boo ma ko taggoon ci olof sax mu gën a neex xam nga pël gi yaa ko dégg. ma ah, man nag sama yaram def day gaaw a daaw ko. waaw may ma événement bi li ma laa bëgg xamal li may liggéey liggéey lu ma kenn bàyyi moor bu yaakaaree na moom laay liggéeyal barki. kolal barki sumu sëriñ laa wax cerno mohammed Ba. li may liggéey ci tabaski bi yëpp pour yawul kon neex man lii laa bëgg di dégg. mais kamal la leen nag. mbaa njool mu ñàkk fayda moom nekk suñu place du fi lambar lambar. ban njool. mooy sam waa jooju mel ni gileem rek. yow xam nga ne man ñàkkuma fayda gis nga sama xol bi yow ya si dee. boolewuma kenn. yow do nga yaa fi tëdd. bu kam ne sax ñew na fi. parce que moom nit la koo xam ne man rek la jël bootam bi teg sama kaw. baadu. kon noonu la mel. noonu la mel te talliwul. talliwul la si loo maa ngi nit di préparer rek. di préparer rek. waaw kon neex na loolu dina la moom lu mu gàtt gàtt. Ah. soobee yàlla dinaa yëkkati téeméeri junni teg sa loxo. téeméeri junni. waaw waaw keem naa ko sax. ah. naa koy xoolal bul tax ma yokk siisaat. <laughs> man noo yokkee rek laay wër de. eh déet kon eh bay li ngay def noo yokkee de laay wër fi mu toll ah, nii ah, ah naa ci ko mbattaa ko waay. <laughs> wala sama muy waay. Eh. ku nekk pexeem. bon ba bëgg a dee. yow sa soxor kii moo tax doo am dara dara dara doo ko am. liggéey ba dee doo am dara. yow joxe woo yàlla mooy joxe. yow xam nga naan ay yàlla mooy xar yaa ngi nii kenn lekkul. su ma demee dinaa ko wax ni xar yi lekkuñu. ñu dàqale yow. moom moomul xar yi maa moom xar yi yow da koo moom. maa ko moom yow xar yi da nga koo moom. maa ko moom ay merde waay yow. an merde an an merde. yow ñeme nga ma. ñeme boo wàccee nan tase. la yow boobu da ngeen tase da bon waay pël yaa ci gën a bon yaa ma gën a bon waay dogal fii waay yow def lambar lambar ci biir dara lii yoroo leen dara naa man yoruma dara man sa xarit laa bëggul xarit laa bëggul waay jogaan hay wut waay mbëlle waay demal ak sa dokk yaa ngi am jàmbaar sa kii na nga ci wax ah. kii ku bon la. non kii ku bon la ngeen liggéey ku bon ku ñàkk a jox la ngeen yow Ndiaye dafa mel ni kam loolu. comme ni nan la ñëwee di jënd xar ànd ak nitam. nga ne ko jaayuma la xar. waaw loolu pour la loolu rafet na la dafa soxor waay. kii mënul maslaa amu xamul maslaa. nii nga koy gis nii. kol mm-hmm. la yor. nañ bàyyi waxam sax ndax dafa ñuy tardel. waaw euh, da da koy indi pour mu jël xool ci xar yi. Ah, mu xool xar yi <laughs> ah waaw yow. kii ah, nga def. ça va bien Kaaw mooy sa kii sa kii sa lan la. <laughs> <laughs> Ah! ak kële. kële kan. kook. kook kan ah. ah non déedéet damay juum benn jarabaa jërëjëf dama fàtte sama jarbaat boobu laa. ah waaw ah, awa ah, sama jarbaat laa fekk jëndal yaayam xar walaay. yow yow dinaa la boole keneen loolu xanaa dafa. ah waaw ah, déedéet. seetal fii ñaari xale yu la neex nga ñëw. wala fii bu la neexee fii. ban la waaw. ak ban SPK mu ngi nii. ak ban. Balla Gaye ah bële mooy nekk Abdourahmane. waaw New Jersey. waaw waaw New Jersey. dégg ma. waaw. yow loo bëgg yàlla na jàmm benn ndekki benn añ. waaw <laughs> jar na bi mooy nekk Abdourahmane Amérique. bi ñaata la. ah euh, boobu day jox ma 500 lan min 500 500 baax na baax na baax na bi ñaata ah bi ñaata boobu noonu bi mhm. jox ma 325 325 ban moo la neex doxal doxal xool bu la neex ah eh, bu laal gerte bi kaay <laughs> kii bàyyi ko dafa bon kaay boobu kii bu laal seetal fii rek bu laal kële bàyyi frontière bii bàyyi na la ah bii daagul daagul laal xar yi yow taxaw waay ji la waay waay waay waay sa bopp waay seetal ba baax nii laa ko bëggee baax na bii ak bii bii ak na baax na defaral ma xari. ma defaral leen. waaw ñu takkalee. nan takk xari waaw. eh. la ñu takk aca. léegi pour balaa booy bi di ko takk ak loolu. waaw bindal ko ci kaye bi. kaye man ban kaye ndi man la moo tax man ngeen pël yi ngeen ngeen ngeen dof lan la. ah waaw a ko ci kayit sama kóor dina jaay. Baye Mor mu bindal la kayit wala mu ñëwal boppam fii man nekkuma si yooyu kon. Baye Mor man gerte ni jaayam laa ngeen dama ci Baye Mor. waaw léegi nag. ñii dañoo ñii lan mel soxor. waaw dama fi indi pour la kay xaar. ban xar laay la. doo def nii. lii sama pàcc la nga ne ma ay xar laay la. xam nga da ma yeb nga déplacé loo ma fii ma tëj da ma jëlal naka da ma yeb ma yeb sax yow man naa ko. waaw eh, xam nga yéen yéen seen xol moo bon ah yéen ku ngeen gis mu ànd ak xale bu baax am sexe sexe bu baax rek seen xol yi bon yàgg la yéen a yem. yow Ndijaay eh, da ngeen a bon yow Ndijaay da ngaa a bon. yow da ngaa feebar bilaay Ndijaay da ngaa feebar xale bi ngay jël amul sa keesa. xoola na juddu tay sa yoon nekku ci. sa yoon nekku ci ay dem pële na dem bu ko neex na dem ci waay fëtse nga naan fëtse. eh boo ma waxee fëtse ma fëtse la. fëtse. see yow. Ah, bi nga naan. ñu offee sa noppa bii rek ngay ñëw. off sa noppa bii ngay ah, wax jeex na dégg seey su jeexul. jeex xoolal. Eh. xam naa la tàppat nga. na jeex dama lay wax rek. ndi jaay jeex laa la wax. ndi jaay bul ma tàngaat. boo boo tàngee lan la. léegi nag boo tàngee lan la. léegi nag boo tàngee lan la. lebalu ma lebalu ma la. ndi jaay. ma waaw. ñëwal koñ. <laughs> perte nga xale bi. woo loo loo perte nga xale bi woo loo loo. waaye yow bugg dogaan taxaw di wax xale bi jigéen bi wax lebal ma kari man ma lebal la kar pour la xanaa kalau dam oh di pexeel tabaski ren bi doy na kaa ku nekk pexeel tabaski ren bi doy na kaa ku nekk pexeel tabaski ren bi doy na kaa ku nekk pexeel tabaski ren bi doy na kaa ku nekk pexeel tabaski ji ku ñëw ci moom am tawfeex seen cabinet médical traditionnel Serigne Medoun Sey borom tawfex di fajkat cosaan booy jëfandikoo gàncax ngeen mën ko fekk